Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, c'est votre émission L'Afrique en moche. L'Afrique en marche s'intéresse ce jeudi euh, de la Confédération africaine de football, la CAF. La CAF a déjà choisi son président. Une rencontre qui s'est déroulée à huis clos, c'était à Rabat. Il s'agit bien d'élire le nouveau président de la Confédération africaine de football qui est éclaboussée par des malversations financières pendant des décennies. L'ancien président, le malgache Ahmad Ahmad, a été destitué de ses fonctions. Il était euh, pointé du doigt accusateur d'escroquerie et de malversation financière. C'est la raison pour laquelle il a été invincé par le tribunal d'arbitral international. Ahmad Ahmad euh, sera bel et bien remplacé par qui Quatre candidats sont en lice, le Sud-Africain, le Sénégalais Maître Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahyak et l'Ivoirien euh, Jacques Anouna. Jacques Anouna s'est désisté, euh, Ahmed, eh, s'est désisté également, Maître Augustin Senghor. Un président a été élu, il s'agit bien du Sud-Africain. C'est le milliardaire sud-africain qui a été élu euh, en compagnie de ses proches collaborateurs, ils ont dit oui que le Sud-Africain dirige la Confédération africaine de football. Maître Augustin Senghor sera premier vice-président, le deuxième vice-président Ahmed Yahya de la Mauritanie et Jacques Anouma, il sera le conseil spécial du nouveau président de la Confédération africaine de football. La CAF doit donner le bon exemple. Une confédération africaine qui appartient à tous les Africains. Fini ce qu'on appelle des intérêts crypto-personnels et ce qu'on appelle les malversations financières. Il est temps de structurer et de réhabiliter la Confédération africaine de football. Nous disons non également à l'ingérence de la FIFA. C'est la Fédération internationale de football associée qui n'a aucune loi de nous dicter et de s'immiscer sur les problèmes de la CAF. Nous lançons un appel au nouveau président la Confédération africaine de football, le Sud-Africain, et ses proches collaborateurs de jouer le jeu dans la sérénité, la clairvoyance et la stabilité financière. Il n'est plus question d'aller vers des intérêts crypto La CAF a besoin d'un bouffet d'oxygène. La a véritablement besoin de ce qu'on appelle une, politique objective et une politique cohérente pour sauver, pour sauver ensemble le football africain. Nous lançons ce défi au nouveau président la CAF et à toutes les confédérations africaines de football que ce nouveau euh, président et cette nouvelle structure vont aller euh, au proche des populations africaines, doivent aussi prendre responsabilité pour organiser de bonnes cannes, ce qu'on appelle une bonne Coupe d'Afrique. Euh, la balle est dans le camp du président de la CAF et de ses proches collaborateurs. Euh, félicitations à Maître Augustin Senghor, euh, qui était pressenti président de la CAF, mais hélas, le destin l'a voulu que le milliardaire sud-africain puisse juger cette conférence africaine de football. L'Afrique a véritablement besoin des infrastructures sportives. Notre continent regorge beaucoup de professionnels, beaucoup de jeunes talents. Il est temps de nous édifier. Il est temps également que les Africains puissent respirer d'une aube nouvelle et d'un football square et pacifique. Et hélas, la FIFA doit s'occuper de ses propres intérêts au lieu de s'ingérer sur les questions africaines. Et nous lançons toutes nos félicitations aux Sud-Africains et à tous les pays membres de la Confédération africaine de football de redoubler d'efforts, de resserrer leurs manches et de tous afin que nous puissions bâtir une bonne confédération africaine de football. Et félicitations au nom président de la mbokk yi di gërëm ñëpp li naan la CAF mooy confédération africaine de football am nañu président bu bees ka moom mooy le milliardaire sud-africain dañ ko tabb dans la discussion ki nga xam mooy premier vice-président mooy maître Augustin Senghor ñëpp am nañu si moom yaakaar ni waroon gisee confédération africaine de football mais yàlla tudd ko sud-africain bi la jël. maître Augustin Senghor mooy premier vice-président deuxième vice-président di le Mauritanien Ahmed Yahya euh, conseil spécial bu président la CAF mooy euh, le euh, le l'Ivoirien Jacques Anouma di gërëm le nouveau président la CAF ma ne CAF daf yàggam ay gàllankoor jëm si mbirum koppar des na que CAF ñoo war a góorgóorlu sauver la continent africaine de football ma amatul xaalis ñuy luubal dafa war a tax au niveau de la confédération jot na ñuy saytuwaat defaraat la CAF CAF mooy bànqaas bi jóg ngir defar gunge euh, le football africain dafa doy mbuxum bi des intérêts crypto-personnels man la dafa jeex au niveau de la confédération africaine de football président bu ñu ko ñu koy loxo di le sud africain ay ses proches collaborateurs ñu indi ay soppite yu au niveau de la CAF euh, jë def si ay motuwaay ay ay euh, moyens financiers ak logistique ñu mën a defar le football africain di defar ñu mën a gëstuwaat Afrique ñi nga xam ne amuñu ay infrastructures sportives ñu gëstu leen jàppale leen tette leen renforcer le professionnalisme sur le continent africain mani bëggatuñu gis que CAF ay nit. di ko escroquer ke luubal ay koppar kaaf kenn moomu ko africain yi ñoo ko moom nañu bokk ndey bokk bàyyi jàppale la confédération africaine de football la FIFA la fédération football internationale li ñu génnee seen loxo la CAF CAF ñun africain yi ñun ñoo ko war a gunge ñu ñoo ko war a euh, jàppale bañ mati ay muxum loolu mooy fédération africaine de football di woo aussi di féliciter maître Augustin Senghor le Mauritanien euh, Libanais Cheikh Anouma c'est des gens d'expérience am nañu ay xam-xam ñoom ñoo war a góorgóorlu euh, sauver la CAF CAF lan mooy seen mission leeral euh, gunge africain yi te loolu jot na te nañu bàyyi xaalis bi ñu lubal au niveau de la CAF CAF bu ñëpp ñoo ko bokk moo doon tey euh, l'Afrique en marche lu ñu doon waxtaane tey la CAF la confédération africaine de football ñu gën a góorgóorlu jàppale l'Afrique pôle bi mën a jëm kanam di préparer des CAN yu mucc ayib yu jaar yoon te ñu bàyyi mbuxum bi bàyyi euh, xiirongaayo bi au niveau la conférence africaine de di woo aussi le président de la FIFA muy Juan Infantino mu jàppale la CAF bu fekkee ne mën na ko te mbañ di joxe des des leçons di imposer la conférence africaine de football CAF dafa war a autonome tubaab yi bañ si dugal seen loxo di ñu exploiter di ñu nag ŋàññi loolu dafa jeex pendant des années des décennies CAF dañ fi yàgg dugal ay xaalis dafa war a dàkk ñun africain ñoo war a sauver suñu conférence africaine tey moo doon tey l'Afrique en marche si présentation bi Cheikhou Sakho fii Salam Vision leen gërëm leen sant y a très